مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وبأمير المؤمنين حمرا خلي مكرا وسقا وقررا بأق قائد المجاهدين حليل الذي عاندينا بحق سعد وبحق حروة سدني تمسكا بوسقى عروة بحرمة القاسم ثم قارجا سدني قوى المتبى مناجا وبأبي بكر وعبد الله سدني فضلا ما له تناي وبسليمان قني كيد العين وكيد قيري وكن يا مهين بأمنا خديجة عبد الأمل في العلم والأدب رب والأمل بأمنا عائسة خني ما يضرني في الأرضين والسماء bi ummina hafsata xul baynil abad wa baynama yajuru suwaan wa nakat bi ummina siina basiin ma sawar minni wa ma batana wajhanni wasar bi malikin wa saafi wa bi hanifati wa ahmadin listajibi bi jaayi jibril astajib suali wa balliqani mabraqa rijali بجاه ميكائيل عبل النعماء ونفي يجعل مثل غيث الكرماء بجاه إسرافيل عبل الإصماء ولتكفني أعوال يوم الخماء بجاه عسرائيل كل يا جميل ترعى يأتي وكذا بعض رعيل واجعل توصلي لمن يدعو بي سعادة الطارين واغفر لي بي وليجد وللذي دعاني لنظمي بالأمن ورضواني وبالسعادة وبحمايا عن جملة الأسواء والهنايا وبالنجاة من سؤال وعذاب وشكرات موت ربي والعذاب وبالبشارات وبالشرور حين مماتنا وفي النصور وصليا وسلما على النبي وآله مع سعاب النجب واغفر لوالدي واغفر لجميع آله وجملة سعاب يا سميح واغفر لكل ذي تعلق بها واقعا سعادتي يا ربي يا يفتروا في أذنب دسام كالبرخ أو حب الغمام وداكوه يجلو زلام كسروج في ظلامي ووجهه مدور وهو خميس أزهر ووباه أسمار مراتل تكلم كان ما أذهبي في قده المهذب وكان صاب طلق سابي هرنينه ذو سمامي naabun mufallajo wa azkalun mubtahijo wal wajuhu ma ilhumami wa huwa malul wara القنوى قل قن زهرا والمسلوقات تلم يورا ولا يورا في سيامي أمدونا نعمتنا محمدنا فرحتنا والجود مزهر الديام إني أخاف الحبيب الجميل مصليا على رسول مسلما على الوصول بحزبه في كلامي salli alal mudassiri xayril waral mubasiri maayil firal mutahari wa alihi wa sallimi rabbi bima yasraxul asana xat faja bijay من لله قد لجا ربي بما يسرى خل أسان قد فجا بجاي أفضل من لله قد لجا حمدي إنكاري من لا شريك له وسالي اليوم نورا ساتيا الملا محمد صلوات الله في أبد عليه لا أنا إلى الذي أما المواهب لجملة القلق ما يختار من برا ناجيت جلا ومن وكرمني تكريم هاد وكل من لقى البريع رحمن وهب لجميع الخلق رحمة من يغني عن سر من قرآن قرأ قلت أمة المصطفى عن كل مقصدات ولتلخمي قلقايا من جدهم مدى يا مالك الملك يا من جل عن قواج ارحم جميع الورى هاديا ردا يا مالك الملك يا من جل عن قوادم ارحم جميع الورى يا هاديا ردا يا مالك الملك يا من جل عن قوادم ارحم جميع الورى يا هاديا ردا ما حوت ما قدنا قلب من درار بجاه أفضل من لله قد لجأ معود ما قناه قلب من درار بجاه أفضل من لله قد لجا علمي والدين وذاتي بسلوات بيونا منه للعسر من وساني للموت الناس مرتبة تولو المراتب لسيت والمكام الله فاد الله قدما وجل له ولا يكون له مثل ولم يكن خدمت خير الورى في البارخ المتامن جزاء رب كريم منفعت لم يكوني لقد نظمت لدى من زل سوسا مدى منه هو اللهم سرواه لم يميني قاتلت في البر سيتانا وكبكبات خير الورى المتابع في سبي تباني عليه من صلوات الله يجبوها في الليل وسبي من فاز بلا درني زل النبي رسول الله زللني هباتا للذي حقق خلقني يا رب سل بتسليم على سندي والآل وصحبي أهدى الأمن والزمان مني تقبل بمدح بقدرك يا من لليجود بي بالبذر والأمان سل وسلم سرمدا يا من كفاني كمدا على الباقي أحمدا وليكن بالإيمان لجميع

حبيبي sa ta

سوما في عرسك laylato حمدي فانا إني قلبي هوى samke adaala yàllaaw sari baqaa bi bi fiq yàllaaw yaa man lawol amru yaa man laa sariika lawo wasi wa ma lig waat li fiq yàllaaw وجاتك اليوم يا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 قداس متليا عني وعن كرادي تدار يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يوم ويوم نفسي بيتي إن منك يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يوم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 الجنات يا الله أنت العزيز العزي أقيم بإيستي إذا يقال لدول التكريم يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقم كل انقضاء بلاسي اللي اخترته يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون الإنقاذ كل الإداء بلاسي اللي اخترته يا الله كرهتني كل شيء képp koo xam ne rek yaa ngi ci biir kër gi teg sa tànk ci biir kër gi fa nga taxawul na nga bëgg li nga bëgg sa xol na nga ko fa fas waaw sëriñ bi yëg na ñëpp képp koo xam ne yaa ngi ci biir kër gi rek fu waay toll na nga taxaw foofee la nga bëgg sa xol nga fas ko fa da nga ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi loolu te wér bi saa su ne mi ngi fi nekkal leen fi di leen bàyyi xel saa su ne di leen wéttalikoo di leen ñaanal suñ borom dimb lañ ba dajeeg tawfiix sëriñ Touba nee leen amin te lu waay bëgg na ko fas si ñaan gi nal taalibe yi mbokki jullit yi ñu ngi leen di siyaare bu baax tey jii nax ñu ñëwoon fii ci Touba doon siyaare ci ku tedd ki di Serigne Mountakha Mbacké xalifatul am ñoo ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal Serigne Cheikh Jëmm Fall tamit di ko ñaanal njabootu Serigne Touba gi yëpp tey nax ñu ngi ànd euh, télé bi nga xamante ni mooy Bichri TV kon nax tey jii ñu bëgg a dalal jëwriñu soxna yi di ko laaj ziar bi. ak niñ déplacé Dakar ba ñëw fii ak li nga xamante ni mooy ñu indi fii di ko soññ mbokki taalibe mi nga xamante mooy soxna yi kii mooy jëwriñ ji di soxna maam Fatou Niang kon soxna maam Fatou Niang nan nga gisee ziar bi ak déplacement bi ñu def Dakar ba fii. asalaamaaleykum maa maa ngi leen di nuyu di leen ziar di tuub di jéggalu di ñaanal ñëpp di ñaan ñëpp ñaanal ma ziar bi daal daayira bi daal ñoo ngi sant. di ñaanal sëñ Mountakha Mbacké yal na fi yàgg te wér di ñaanal sëñ Cheikh Jëmb Fall fi yàgg te wér di ñaanal suñu jëwriñ bi yal na fi yàgg te wér te yàlla kàttanal ko te boole ñu ko ñun ñëpp di ko ñaanal soxna yi di ko ñaanal ñëpp daayira bi daal sant rek bi mooy suñu ñetti yoon di ñëw di ziar si sëñ Mountakha moo nu tuddeel boppam Ansaaru Xaddiim mbokk yi ànd di liggéey sëriñ Touba ñun ñëpp ay mbokki deret lañu yàlla dimbali ñuy liggéeyal Serigne Touba di ñaan liggéey bi ñuy liggéeyal Serigne Touba Mbacke yal na ko Serigne Touba Mbacke nangu te yàlla guddal sunuy fan wéral sunuy cër ñu yàgg fee fekk Serigne bi di ko di ko jox sunuy addee mu di ñaanal ci barke Seydina Mohamed barke Serigne Touba Mbacke ci barke mu Mountakha Mbacke di ko ñaanal seen Cheikh Jëmba Fall li may soññ sama mbokku taaliba yi am na loo xam ne sax man duma ko wax mais ñoom gis nañu ndax daayira boo xam ne ñetti at la am macha allah ah pëseefu tegu ci yoon. te daayira bi dafa am charte yoo xam ne ñëpp yal na yàlla def la ay murid saadix loolu laay ñaan ci loolu laay loolu laay soññu taalibe yi ndax bëgg a nekk murid saadix bu ku nekk bëgg nga koo nekk mais yal na yàlla def ay murid saadix yàlla boole ñu ci milliardaire Serigne Touba Mbacke ñu di ko liggéeyal di di leen gën a soññ rek ku ñëw rek di nga gis moom li tax nga soññ sa bopp ku ñëw fii di nga ko gis at ku ñëw ci daayira bi waaw waaw yokkute yëpp ñu ngi koy gis yàlla na at mu nekk rek dàqal ñu ba nu romb at mu nekk rek xéewal yi gën a bari ci bark Serigne Dame Mouhamed barke Serigne Touba Mbacke barke Serigne Mountakha jërë ngeen jëf jërëjëf. waaw ah, asalaamaaleykum wa rahmatulah rabbi li sadde wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli maa ngi siyaar kullukum rek di wax jërëjëfati Serigne Touba jërëjëf jërëjëfati Serigne Mountakha Serigne Mountakha Mbacke na fi yàgg lool te wér waaw ñu ngi santaat bu baax a baax. macha allah wax dëgg fa neex yàlla daayira bi daara ansaarul xaddim la sëñ bi moo ñu jox tur bi te ñu ngi dolleeku rek lañ ci gis ak yokkute macha allah waaw ziar bu ñëw rek day gën a wane suñu féddali ak yokkute bu baax a baax am nañ ko wax dëgg fa neex yàlla ñu ngi santaat bu baax nag waaw di wax euh, jërëjëfati daal sëriñ Tuubaa waa ñu gën a jaadiwaat rek gën a pas-pas am pas-pas bu baax liggéeyal Serigne Touba rek moo fi nekk leneen nekku fi waaw ñun maanaam Serigne Touba daal jaral nañu lépp daal te moom rek lañu am. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu maa ngi leen di nuyu waa daayira bi seen jëwriñ làmp maay taaw yaayam moo tax ma ñëw gis naa seen Pastef lool. ma ci kontaan lool lool lool ah te bëgg cee dugg nag waaw ndax daal sopp Seex Mountakha rek jar na lu ne waaw ñu koy ñaanal na gudd fan gu ànd ak wér gu yaram saare daar yi ni mujj gu rafet ci barke yonent bi defal ko mboolum jullit seen daayira bi itam ca kanam ca kaw ca kanam rek ci lu baax waaw nday xaar caam waaw. di ñaanal sëñ Mountakha yàgg fi loolu te ànd ak wér. daara ji moom damay sant bu baax rek si lu ma teewee tey ziar bi parce que yàgg ngeen ñëw kër ga di fa jàng di fa ñëw daara bi mosuma teewee tey nag dama jaayante woon ne xaaral ma ñëw si ziar bi xool daara bi nu muy doxee pour may mën di ñëw di ànd ak sama mbokk yi di ñëw si daara ji. maa ngi leen di ñaanal yokkute bu baax ngeen dem ba mu doon daayira bu mag sëñ bu mag bi jàppale leen incha allah si bàkki xasida yi jërëjëf sëñ Fallou auzu billaahi mina sheytaani rajiim wa innii u'iizu bika wa zurriyata mina sheytaani bi rabbi auzu bika min hamazaati sayaatiin wa auzu bika rabbi an yaxduruun sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te bi moom macha allah lañuy ñuy wax yitte yeeg passeef bi yëpp di soññ sama mbokk soxna di soññ waa daara ji yëpp rek ñu gën a laxasaayu rek gën a sax ci liggéey sëriñ Touba yi xam ne moom rek lañ fi am moom rek lañ fi am di sant yàlla bu baax ci tawféex gi ak kàttan geeg bañ fekke ko ndax lii moom macha allah ñëw ziar si ku tedd ki moom yokkute la rek tawféex la kontaan nañ trop ci taxawaay bi ci Pastef beeg yitte gi yëpp. di ñaanal sëñ Muntaxa rek yàlla yàggal ko fi wéral ay cëram rek yàlla saxal ñu ci liggéey sëriñ Touba bi sàmm ñu suturaal ñu ñun ñëpp bàkk Cheikhu Xadim aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmani rahim rafaatu fi xidmati tawfiqi xaaliqina ngi leen di bu baax di ñaanal sëriñ Muntaxa Mbakke mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye noonu nañ ko ñaanalee Serigne Cheikh Jëmm Fall mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak njabootuk Serigne Touba gi yëpp tey nag ñu ngi fii ci daaray euh, Touba ci kër Serigne Mountakha Mbacké waaye ñëw ci ndigalu daara ji nga xamante ni dañoo jug fas yéene liggéey Serigne Touba waaye daara ji nag tur wi nga xamante ni Serigne noonu nañ tudd Serigne Mountakha Mbacké moo leen ko tuddee mooy daara Ansaarul Xadim li waral daara ji nag mbooloo la waaye mbooloo mu bokk pas-pas la ak deret daanaka ñëpp ret ñoo bokk benn maam euh, yàlla dogal na ay dëkk yu fasantikoo ci Bawal ñenn ñu ne am ñu fa jugee bokk tënku ci daara ji daara ji nag ki ko jiite mooy Serigne Maam Lamp Ñang di jëwriñu daaray ansaaru xadim ñoo ngi ñaanal suñu borom gën a guddal aw fanam tooyofal yan wi ba ñun ñëpp nekk ci ginnaawam ñu téeñul ko ko téewal ko yan bi ba mu gën a oyof ci moom ki topp ci moom ndax mooy Serigne Cheikhouna Niang mii nga xamante ni bu fi jëwriñ nekkul moo koy wuutu ak Serigne Moustapha Diaw ak sëñ Mouhamed mii nga xam mooy trésorier euh, ki yor wàllu finance bi kon nax ñu ngi siyaar ñëpp di béggee ñëpp di siyaar tam Serigne Khadim mii nga xamante ni mooy alxuraan ji te kenn ku ne xam na ni Serigne Touba ak alxuraan ndax yaa kitaabal karimi anta xabibi wa xalili wa kuntu xablu tabibi kon alquran mooy téere bi nga xamante mooy li sëñ Tuubaa doon wax kanzul kitaab wal xadis wal adab laa jamaatu fiddatu wala jëmu zahab chérif mi nee na alquran ak xadis ñooy sama samay samay samay ngànnaay kon nax dañuy dale ki nga xamante ni mooy jëwriñ ji laaj ko ci cant gi ak sant gi ak yokkute gi nga xamante ni ren ji am nañ ko suñu diggante ak sëriñ bi ak suñu mag ñu baax ñi nga xamante ni fekk nañu fi ñu gàttañu kon jëwriñ maam làmp lan nga gisee tey ziar bi ak cant gi ak xamante ni chaque jour ci ziar yi mooy ànd ak ñun te mooy Bichri TV ñoo ngi koy ñaanal yokkute gu rëy suñu borom def ko mu doon télé yi nga xamante ni moo gën a rëy ci diaspora bi bisimilah sëñ maam làmp salaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu ngi siyaarawaat mbokk taalibe yëpp tey tuub di jëm ci Serigne Touba di ko ñaan mu nangul na sunu bu baax ñoo ngi salaat sunu njëbbal bu wér di tuub jooju xanaa sant rek di sant bu baax fi nga daanale di Bichri TV mii. Euh, di sunu wóolëre nga xam ne Serigne Touba def na ci tawféexam euh, mboolem siyaar seen yu nu jëf si ci Serigne Touba ñoom lañ koy àndal mooy Bichri mii di mbég mi euh, mu mu dëppoo lool ak kër Serigne Bassirou gii ñu ñëw mais ak cant bu baax siyaar bi it wax nga ko ak cant la sunu digg ak Serigne bi mooy mbég mi nga xam ne mm, ak cant gi ak tawféex gi nga xam ne du deñ ci mukk du deñ mukk di ko jóor muy gën a bëgg sëriñ Touba. waaw nga xam ne àdduna ni mu tëree ak ni xëbal euh, jamono rek ni ñaan sëriñ tubaa tegg ko fi gaaw gaaw gaaw waaye teewut mu def tawféex ci talibim yi ñu namm ko lool bëgg koo siyaare lool bëgg a yokk ci mu gën koo bëgg euh, def tawféex ñu egsi fi te lépp di kàttanam ak ndimbalam loolu kat moo di ak cant nga xam ne boo bëgg léegi euh, saa suñu ko siyaaree ñëw ci moom day am ay jeexital. Euh, day am jeexital euh, gën a xencu mbirum yàlla gën a xencu mbirum Serigne Touba gën a bëgg doon nituk Serigne Touba euh, foofu ñu ne di sow am melo mu def tawféex tënkundu ci mbiram di ñu dajaleloo ni nga ko waxee di daar ak mbokk goo xam ne ay ay gox goxaan yu fasantikoo waaye lépp di ay mbokk ñu fi daje ñëpp mbokki maam Serigne Touba def nu nu nu doon yi murit fas yéene ànd liggéeyal Serigne Touba euh, di waxtaani Serigne Touba yow mii ngay njiit gi ci ñi boroom xam-xam yi ci ñi koy waxtaanee weer wu ne ñuy daje itam di jàng alxuraan sunu borom bi di jàng xas de Serigne Touba yi euh, di sëkkër batul laa ilaaha illallah di waxtaanee Serigne tey soññante ci diine tawféex googu kat la nu Serigne Touba defal léegi di ko sant si di yeesalaat sunu pas-pas ci moom tey fuggalu ndigal rek loolu mooy sunu cant bu baax ak ni mu sàmmee njaboot gi ni Serigne Touba tabbee ci njaboot gi ci ci gi yëpp de mooy li nga ko waxee diggante ndàgga ndàgga ci mbël eh, njawe eh, njaabi caala eh, ndéem fépp rek wax dëgg Serigne Touba mu mu mu buur ñu rek ñu ñu jëm ci moom ñoo ngi ko koy ñoo ngi santaat bu baax te loolu kat liggéeyu maam yi la moo def jeexital liggéey gu nangu moo def jeexital ba ti sa di yi ah, di santaat bu baax sëriñ bi di bég lool ak sa alhamdulilah. jërëjëf sëñ maam Lamp ñoo ngi lay bégee lool ci kàddu yi nga xam ne yëkkati nga ko waaye di jooyal cant rek nga jooyal ñu ko suñu mbokk mi nga xamante ni moo yéwénal waxukaay gi di sëñ Mor Niang nga xamante ak sant rek nañ koy jaajëfal ndax li bu yombee ci moom la kon ñu ngi koy jaajëfal bu baax sëñ Mor di ko ñaanal fan yu gudd lool ci barke sëñ Tuubaa di wax ni ñu ngi koy yëkkatee nax ci kàddu jëriñ di la wax sant nañ la bu baax kon nag dañuy jaarale kàddu gi rek ci seen Cheikh Naam Ba. salaamaaleykum rahmatulah xanaa amaat mbégte rek si suñu bés bi xam ne lu ko tax a jóg mooy amal mbégte bu baax suñu jàppandil gi mu mel ni gis naa jamono bi mu tëddee waaye dañuy sant yàlla bu baax rek suñu boobu defee lépp jàpp ni rek ba nga mën a ñëw yeggaat bi. mën na yeesalaat suñu jëm yeesalaat suñu ruux di santaat bu baax rek mboolem waa daara ji mais rek gis nañ njitte bu ñu jox liggéey bi di sàkku ak ci sëriñ bi njëggal ak yërëmante si suñu borom di si moom itam euh, ngërëm ngërëmal sëriñ bi loolu rek moo tax suñu jéego ñu ñëw ba si sëriñ bi ngir sàkku loolee kon di ñaan suñu borom rek mu defal ñu tawfiir ba lépp loo xam ne indi nañ ko fi moo xam tawat la moo xam yitte la moo xam jàngoro lépp rek suñu borom saafara ko bu baax a baax a baax ci kàddu yi jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax di siyaar mbokk jullit yëpp ak mbokk taalib yëpp di ñaanal sëñ Mountakha Mbacké mu fi lool te wér di siyaar waa daara ji Ansaarul Xadim daanaka lépp teewluñ wax na ko rek ni mu ko waxee rek loolu rek lañuy toppaat rek wax dëgg yàlla. lii ci am solo nag tënk wax ji yëpp mooy lenn rek mooy àndandoo ci ak biiru mbokk ak rafetal liggéeyal sañ Tuubaa te sunu yitte yëpp tamit ci lool rek lañ ko jëmale li ci topp it mooy liggéey Sëñ Tuubaa moom xamul jamono ju naqari euh, foo toll rek war ngay dëggal sa Pastef te loolu moom moom la murid yëpp jàngale mag ñi fi jiitu ñu àndoon ak sëriñ bi itam fu ñu toll itam ñu jamono naqari naqari itam du leen téere li ngeen dox seen diggante ak sëriñ bi ñu jéem def seen kéemtalaay kattan ngeen mottaliku ñun nag foofee lañ taxawee rek te li ci eh, am solo mooy sëriñ bi moom boo ànd ak moom dalay dimbali ndimbalam googu nag ak taw feexam yooyu loolu rek moo ñu indi ba fii tey ñu koy siyaare waaye du sunu njàmbaar du sunu dara dañu xam ne lépp day delluwaat ci moom rek di yeesalaat njëgal di ñaan sàkku njëgal suñu borom di sàkku tamit ngërëmal sëriñ bi di ko sàkkul mbokk taali bi yëpp wax dëgg yàlla yàlla yàggal ànd bi te it ñu yàgg a ñëwut fi sëñ bi di ko siyaare yàlla yàggal ko fi naalam yëpp mottali ko te ñu ànd koog moom loolu de mooy suñuy pas-pas mooy suñu yéene yàlla tamit musal ñu ci saytaane te gën a dëgëral mbokk gën a dëgëral ànd bi gën koo rafetal ñu ngi sant ñëpp di sant jëwriñ di ci boole mbooloom yëpp di leen tuubal bu baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatullah kon na kii ñu toogal mooy Serigne Modou Awa yor ci wàllu soññu liggéey bi ndax daara ji tamit lu muy yaatu yaatu yaatu kenn ku ne daa am jëriñ yoo xamante ni ñoo nekk ca bopp ya teewu ndax jëriñ ju mag jamoom moom ko te mooy jëriñ kon kenn ku ne la nga jiite rek dañ la ca jox nga soññ ci ngir bu ak sant ak yokkute gi nga xamante ne am nañ ko ci sëriñ bi bisimilah si ma daawa salaamaaleykum wa rahmatullah ah, di ko teg ci loxol jëwriñ comme ko ñu jël wàllu soññ bi teg ko suñu loxo wax dëgg yàlla mbooloo mu nekk mbooloo mu neexu soññ ndax booy ànd ak mbooloo moo xamante ni ñëpp yëg liggéeyal sëriñ bi ñëpp yëg liggéeyal sëriñ Touba bi ñooñu dañuy neexu soññ wax dëgg yàlla moo tax wàllu soññ bi amuñu si benn jafe-jafe dëgg yàlla ndax comme ni koy waxee rek liggéeyal Serigne Touba si biir mbokk gi wax lañ koy waxee liggéeyal Serigne Touba si biir mbokk gi ba tax na mbokk gi yëpp bokk d'accord si liggéey bii moo tax soññe bi amuñu ci benn jafe-jafe dëgg yàlla ñu ngi ci sant bu baax nag di si sant suñu jëwriñ Mame Lamp di sant Serigne Cheikhouna ñun ñëpp dañuy jàpp si woote beeg lépp wax dëgg comme ni ma koy waxee rek daara ji moom daara ju jot day gën a neex euh, di gën a di gën a barkeel ñuy sant bu baax a baax di ñaanal ki mu fi fekk di sëñ mu dafa mu yàgg fi loolu jaajëf noo gisee yokkute yi nga xam ne sëriñ bi defal nañu ko mu mel ni daaw fañ nekkoon xatoon na lool ci mbooloo mu bari ba daanaka bi ñuy gis sëriñ bi ci xat-xat la ñu fekk waaye teew gis nañ ko gisinu tawféex tey nan nga gisee fi ñu bi indi tey ak tawféex ak ñi nga xamante ni ndeysaan dañ doon njort ne est-ce que dinañ gis sëriñ ci jamono yi na xari yi tey lañ nga gis liggéey bi nga xamante ni am na sëriñ bi defal nañ ko ci yokkute. waaw loolu moom li ma ciy wax rek moom mooy xool yu tàppe mhm. xool yoo xamante ni dañoo tàppe mhm. booloo nekk benn mhm. ndax daara ji ñun ñëpp yéenante jàmm Cheikh Ibra la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah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 yàlla la ilaha illa la la ilaha ifal illa la la ilaha illa la la ilaha illa la yàlla la ilaha illa la la ilaha ifal illa la إلا الله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 laa ilaha illallah laa ilaha illallah Cheikh Modou Moustapha Fall kenn laa laa ilaha illallah Fall laa ilaha illallah La ilaha illallah Fall La ilaha illallah laa ilaaha illallah faal laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah faal laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah faal laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah faal laa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 laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah faal laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah faal laa ilaha illallah laa ilaha illallah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 ñun bu nu amee yéene tamit li gën ci ñoom sëriñ bee ñu ko gën a xam li war ci ñoom tamit sëriñ bee ñu ko gën a xam kon na nga leen ma dimbale leen jàppale leen ba li ñu bëgg ñu mën ko am bu déwénee tamit ñu ñëwaat fekkaat la fii te bu kenn am ndog te bu kenn manqué kenn ku ne la mu yéene woon ak la mu mébétoon sëriñ bi dimbale ko defal ko ko boobu àggee loolu lépp suñu borom jàppandil ko ko te sëriñ bi mën na loolu kenn ku ne ëmb nga ci sa xol loo xam ne bëgg nga ko bëgg nga ko te sëriñ bi xam na ko na leen ko sëriñ bi defal te mu gën ci ñoom ñoo ngi nii ay jàngkati xasida lan ay jàngkati alxuraan lan ay ñu bëgg sëriñ bi lan ñuy liggéeyal sëriñ bi lan ñu maandu lan te ñu gore lan tamit ñuy liggéeyal sëriñ bi rek moom la ñoo fi nekk nii muy góor muy jigéen na leen sëñ bi ñaanal nag bu baax a baax ñun nde ñoo ngi sàkku sëñ bi gën ma leen a dimbale leen ndax ku ñu dimbale nga man loo mënutoon waaye na nga ma leen dimbaleel ba li ñu bëgg ñu man ko am ñun nag amuñu lu dul sëriñ bi ñoom ñii tamit ñoo may defal loo xam ne waaw ñun ñoo ngi may defal loo xam ne man mënaluma ko sum sama bopp mm. ndax samay bokki bopp lañ mm. kenn ku ne bu leen neexoon am na feneen fu ñu mën a dal mm. am na feneen foo xam ne tamit mënoon nañ faa jaar am na feneen foo xam ne mënoon nanoo doon mënoon nanoo doon bunt seen bunt ci sëriñ bi waaye dañ ma bàyyee lépp di sëriñ ma Maguette Niang mu soññaan ñu jàjjiwaat ñu du yaat ñu ba ñu mën a xam jëmm ji ñuy seeti te mooy si Cheikh jëmm moo moomee day moom mii day yombalal nañu ko lool wax dëgg fa yàlla day bu doon keneen mën naa metti gis gi waaye jëmm ji ñuy jox kàddu yi bëgg naa ñëpp teewloo ko xool ak xel te bañ koo cof te xam ne jëmm la joo xam royukaay la Serigne bee ko dimbali sagalee ñu ko ñun askanu ndàgga ak askanu njawee nag fu ne ñëpp a ngi ci biir foo lim na ngay jum waaye jëmm jii day man na kenn ku ne fa nga toog maa ngi dogg ci Serigne Touba loo mën Serigne Touba dafay wax boo doxee ci aw yoon yitte dab la aajo jooju war a faju Serigne Touba neen bayitu xasida bu ñëkk daw ci sam xel yëgal ni aajo jooju faju na maa ngi ñaan nag kenn ku ne bayit woo nekk saxel nga tudd ko ñaan ci sëñ Mëgëy Ñang mu yàgg fi lool te ànd ak wér te balaa moo tabbi di dugg suum mu lakk ngërëma Cheikh Ibrahima Fall woo xam benn taaliba Cheikh Ibrahima Fall mu su koo làq ci barki Serigne Touba tàmbalee ci jëwriñ maam Cheikh mais ak soxna yi yi nga xamee ne wax dëgg yàlla suñuy xool dafa sedd lool wax ji sax jëru ko ndax li waral wax ji jëru ko yéen ñii bu ngeen waxee waxaale ngeen ma ndax li waral loolu ñun ci daa ci daara ji lañ bokk nit nag bu bokkee ci daara ji day tënku ci la nga xamee ne mooy la daara ja tënku ndax ñi fi nekk ñëpp kenn ku ne tey boo ko joxoon kàddu gi war naa mën a wax li nga xamee ne mooy li war ci kër gi ndax kenn ku ne nag kër gi moom sa kër la li nga ko waxee léegi rek moo ci ne yéen waru leen a sant man maa war a sant ndax dangeen ngeen maa defal loo xam ne mënalu ma ko sama bopp ndax li tax mënalu ma ko sama bopp mooy dafa am loo xam ne ñoo dañ koy liggéeyal sëriñ bi mm. rawatina yéen ndax jamono ju kuréel bii du dul kuréelu musique mbaa muy kuréelu mbalax wala muy kuréelu leneen kuréelu yàlla la muy muy ak Cheikh Ibrahima Fall ngeen jóge ci sëñtuwaa nag jamono ju ne te noonu ngeen koy doxee pas-pas bi nga xamee ne moom ngeen di am di jóge ndakaaru dong su ngeen yamoon ngaabu sëñ Tuubaa dina faj ay bi wallaahi rawatina nag rawatina nag ngeen jóge ak dégloo ak dégloo ak dégloo ma ne ko rawatina nag ngeen jóge ndakaaru ba tàbbi ci kër sëñ Tuubaa di sëñ Muntaxa di sëñ Basiiru loola kon rek ak dégloo doy na ci ak rafet njort waxuma la seen jëmmi bopp yii waaye yóbbaale sax mën ngeen koo defaale ñeneen ñoo xam ne seen xel dafa nekk ci ñoom kon na ngeen gën a dollee rafet njort bu baax a baax xam ne ab murit moom saa bu jógee jëm ci ab sëriñam rawatina sëñ tubaa ak Cheikh Rafal sëñ Rafal tëlewuñ dara na ñuy làmb suñuy xool bu baax te gën a yokk pas-pas yi ndax moo ñuy dimbale de ab murit keroog ba mu jébbuloo la la sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima Fall signé contrat ak yow loo amatul rek ci yow la. xam murit lu mu mënut na xool boppam bu baax a baax na ni yokk suñuy pas bu baax sëñ bi amut lu mu tëlewut ndax nee na àddina ci boppam yàlla da koo jox mu rafaatale ko Cheikh Ibrahima Fall nee na bu baaxoon bu baaxoon da koy rafaatale Cheikh Ibrahima Fall waaye lu gën lu ne rek jox na ko Cheikh Ibrahima daa mel ni sëñ sëñ bu mag bi dafa yónni maam Thierno Ibrahim ak maam Cheikh Anta Gaawaan Ndar nen bi ñu demee Ndar ba sëriñ bi lim leen yónni ba mu ba mu mat di bëgg a dem am benn tubaab bu téyee maam Cheikh Anta Gawane ko dama laa bëgg yónni ci sa sëriñ ba ne ko nag ku naqaree waxee rek ñu noonu mu ne ko ah loo ma fa yónni mu ne ko boo demee li nga koy njëkk a wax mooy boo demee da nga koy wax ne ko sëriñ bi ngeen bu ngeen waxee seen yónneen ba noppi nee ko sëriñ bi dafa am na am na tubaab bu la xam ca ndar mm-hmm. nee na loo ko loolu boo ko waxee sëriñ bi dana la déglu. waaye leneen loo ko man di wax ci lu dul yàlla du la déglu nee na mu ne ko kon wax ma li nga may yónni mu ne ko boo demee nee ko yàlla dey bu ko neexee mu sàkk ay bëy wàcce leen fii ci jamono daal di sàkk ab sër bi nee na daal di koy wàcce na ko sàmmal ma bëy yi waaye nee na bu ko neexee nag mu daal di doon aw bëy nag wàcc ci ci bëy yi daal ne sër bi sàmmaale ba boo demee wax ko loolu nee na tubaab bi ñëw. xaw ma maam Santagaan ñëw bi mu ñëwee nuyoog sëñ bi ak maam Thierno ba yóbbante bi wa li mu ko lim lim li ko yónni woon ñu wax ko ba noppi. mu daal di si daal ne ko ah, man de sëñ bi am na tu euh, nde àq la te am na tubaab boo xam ne nee na dalaa xam ca ndar nee na sëñ bi daal di jubbantiku ndox soo ko waxoon loolu day jaaxle du jaaxle ci loolu mais day wax ne amul ku ko war a xam ndax sëñ tubaab du ku ñuy xam. mu ne ko lu la wax nga ne kooku lu mu la wax mu ne ko. kooku de nee na yàlla bu ko neexee mu sàkk ay bëy wàcce ko ci jamono daal di sakk ab sër bi wàcce ko na ko sàmmal ma bëy waaye nee na bu ko neexee tamit mu doon aw bëy wàcc si na ko sër bi sàmmaleel ma nee na ko mooy yonent bi nee na yàlla nee na keroog Sëñ Tuubaa dafa dafa dafa tàng ba fattu ñetti fan nee na daal di dellusiwaat naa ne ko ana ana ana ana ana ana maam Cheikh mu ne ko maa ngi nii Mbàkke mu ne ko ana nga ne lu tubaab bi wax mu ne mu jaar fam jaaratoon mu ne ko kooku ndax mos tuuti mu xam Muhammad waaye du du ku ma man doonuma ko ñuy xam nga xam ne Sëñ Tuubaa yàlla la kooku bokkul ci ndax loolu nga wax léegi looloo tax ma indi bay bayit bi léegi boo gisee kooka doo gis kii te boo gisee kii doo gis kooka kon Sëñ Tuubaa la nan gëm Sëñ Tuubaa te ko xam na lu ñu bëgg rek Sëñ Tuubaa ko defal ndokk nag bam ñu dugalee ci biiram ñun ci biir jibe yi Sëñ Tuubaa lañ ne ak Cheikh Ibrahima mi mooy Cheikh Ibrahima ñun donga yi nag poche yi ci boppam la ñu Cheikh Fall di dugal ndax suñ tubaa jëmm la joo xam ne moom kenn xamul lu mu doon moom kenn mënu koo xam tamit nag jaa ngeen jëfati mafatihal bishri wal amni wal janna fi salati wa taslimi ala muqimi sunna mafatihal bishri wal amni wal janna fi salati wa taslimi ala muqimi sunna